القائل في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد طلع الهلال هلال طه فيا بشرى وواها ثم واها لقد طلع الهلال هلال طه وبشرى وواها ثم واها أرحبه أهنئه وحتم على الشعراء كذا أحباب طه ربيع فيه مولد من تسامى على الأكوان وهي به تباهى لذا حق الهناء لبنت وهب متى حملت به نالت مناها متى حملت به رسل أتتها تبشرها كذا الأملاك جاها كذا برهام نجل الحاج هذا يهنئها خصوصا لو رآها بمولده أرجين إلى فتح وأشرب ما أسر ذنب المياه بمولده أرجي كل خير أصير به لأقراني ذكاها صلاة الله يتبعها سلام على آل وصحب بعد طه الله الله الله الله الله يا الله هنيئا لإبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعمنا الهدوء الله الله الله بأفضل أرض حل أفضل مرسل بأفضل يوم فاستبان كماله قد اختير من كل العوالم أصله كما اختير واختيرت لذاك فعاله الله الله الله الله الله الله الله قد اختير من كل العوالم أصله كما اختير واختيرت لذاك فعاله محمد مختار وآدم طينة محمد يوم البعث راق خصاله الله الله عليه صلاة الله ثم سلامه متى لاح من فوق السماء هلاله الله آه الله الله يا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وما نتدم مولاي أحمد والخونة maa ngi commencé di e, gërëm yàlla mi ñu may kàttan ba ñu ñëw fii e, di julli ci kaw yonent bi di ñaan yàlla gàmm bi ñu koy def ay gàmmu waat ci daraja rasulillahi sallallahu alayhi waaw e, gàmm bi nag li muy tekki mooy màggal yonent rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñoo koy màggal ci zikr ñoo koy màggal ci cant ñu ngi koy màggal ci wàcce ay kaamil ñu ngi koy màggal it ci joxe ay xéewal bokk na ci yooyu ci xéewal yooyu li misri suñu sëriñ taamu woon di def boobu ba léegi war na def juróom-ñaar fukki at année bu ne at bu ne daan euh, def ndimbalam ci wàllu màggal yonent bi fii ci Médine mu doon indi nag ay ay ay nag jamono yooyu nag lañ daan wommat jële ko ci Mauritanie moo ñëw ba fii mu doon suñu ndimbal ci eh, gan yi fii ñëw di màggal yonent bi ak ci màggal yonent bi it yàlla dafa nekk dafa def nekk jamono soppi ñu gis nit ñi nekk léegi eh, ñoo ngi jublu ci eh, ci giléem yi xëy na ndawtalu giléem moo gën a neex ndawtalu nag ñu ni it comme loolu mooy mbëggeel bi nañu jublu foofu ñu def mi ko def nag boobu ba léegi juróomi at alhamdulilah at bu ne ñu ngi indi ay giléem li ñu indi nag xeeb nañ ko parce que diggante ñaar fukk ak ñett ak ñaar fukk ak juróom la indi boobu ba léegi ci giléem waaye alhamdulilah dina yokk ndax loolu mooy ñu mooy suñu yéene ñu ñaan yàlla mu ma ñu jàmm ak kattan ba lépp loo xam ni dina bokk ci màggalu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu def ci suñu loxo li ñuy def nag néew na xeeb nañ ko waaye lépp lu jëm ci yàlla kenn waru ko xeeb ndax eh, yàlla ku ko koy defal eh, amul app bu lay fay amul app waaw ñun nag teewaayu googu eh, la ñuy teew fii teewaayu cant ak gërëm suñuy sëriñ di leen ñaanal yàlla ne leen yàlla may kattan ak wér gi yaram ba ñu mën womat fi ñu Cheikh Ibrahim digal ne foofu wala ñu war a jëm mooy mbëggeelu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ak mbëggeelu yàlla di jaamu yàlla ci ni mu war a ci sunna rasulillahi sallallahu alayhi wasallam loolu moom dañu ñaan yàlla mooy mayuñu ci alhamdulilahi ñoo ngi ju yoon yi tant que xalifa mi ngi fi tant que doomu bàyyi yaa ngi fi alhamdulilahi jàmm rek moo fi xew waaw lii des mooy ci ñun taalibe yi nañu mandu nañu mandu gëm suñu sëriñ li fi nekkoon nañ ko gën a dëgëral yeesal kóllëre gi Euh, euh, dig dégg suñu ndigal suñuy waajur ak suñuy sëriñ ci topp baay waaw waa Mauritanie ñoom bàyyi rek la ñu xam bàyyi la ñu am bàyyi la ñu yaakaar àddina ak àllaaxira waaw parce que ki lay ki lay womat ki lay yoon waaw yoonu àjjana ku la koy xalal kooku boo ko topp doo topp leneen te yoon yi ñaar rek la yoonu yàlla walla yoonu seetaan yi ñun yoonu yàlla bi la topp. jaar ci buntu baay ñaan yàlla incha allah yéene yi yéene yi ñu ci am yàlla naka yàlla àggale ci jàmm ak salaam alhamdulilah waaw ci njiit suñu xalif sëriñ Mahi Niass radiyallahu anhu ak doomu baay yëpp. إذا كان حب الشيخ حقا ومعلقا بمالي فما لي دون ما كنت أرتجيه إذا كان حب الشيخ حقا معلقا بمالي فمالي دون ما كنتم وارتاش وإن كان يلفى بالمحبة والتقى وبالصدق والإخلاص في كل مناجي إني لا أرجو أن أكون مقربا بحب وصدق في الإله متواش إني لا أرجو أن أكون مقربا بسبق وصدق في الإله متوجه ذا كان حب الشيخ حقا معلقا بمالي فمالي دون ما كنت أرتاج تملكني حب الخليل جبلة هم أصد قلبي عناه ولا مشاه وما زادني قرب الحبيب وأصله ولا وصله في الدهر إلا تعطش وما زادني قرب الحبيب وبعده ولا وصله في الدهر إلا تعطشا وقيل لي يوم القيامة فاختبر هذا الذي تهوى فخذ منه ما تشاء لا قلت له حسبي من الشيخين راتا وحسبي بها نزلا وحسبي بها عشا وإن كان حبي للخليل يضرني يا ربي عجلي من الضر ما تشاء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله comme ni ñu déggee léegi waykat bi ni mu ko waxee moom mi ngi wax ci li mu mujj wax وإن قيل لي يوم القيامة فاقتبط فهذا الذي تهوى فاخذ منه ما تشاء لقلت لهم حسبي من الشيخ نظرة وحسبي بها نزلا وحسبي بها عشاء bu ñu la keroog àllaaxira yaa ngi ci biir àjjana loo ci soxla mu ni ñett yi laa ci soxla gis sama sëriñ doy na ma njogonal doy na ma reer maanaam Misri bàyyi rek la amoon bàyyi la xamoon jox na ko bakkanam jox ko lépp li mu am te doyu ko mm, dañuy wax ci alxuraan inna allaha ashtara am mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yàlla jënd na ci way gëm yi seeni bakkan ak seeni am-am seeni alal waaye ngërëm ba mooy da leen di jox yool ba mooy da leen di jox ajjana moo tax nit ki dafa war a jox yéppam yàlla boo gisee ni ñu doon wax sànq ci affaire giléem yi ni misri misri yi mu am yépp da ko programmé de telle sorte que na ñëw ci cheikh rek cheikh Baye moom lu mu am ci alal ak bakkanam moom nee na xamul lu dul buy jëm ci Madina ak buy jógee Madina amul beneen yoon bu mu xam bu dul boobu mi ngi jógee Matam la na ñëw ci Madina wala mi ngi jógee Madina rek dem ci Matam wala na ñaar yi la xam nit ki nag dina mën a jox alalam waaye li gën a jafe mooy mu joxe bakkanam te joxe bakkan ci la tant que nit ki joxewul bakkanam doo àgg ci yàlla danga joxe sa alal ngir àgg ci yàlla waaye joxe sa bakkan yit war na ci am bakkan nag bi ñuy joxe mooy bakkan bi nga xam ni am na solo du bakkan médd bakkan buy dund tey luy dund ci yàlla lay jóge bakkan bala nga koy joxe day doon bakkan bu ñu tarbiyu bakkan bu ñuy tarbiyu bakkan bu tarbiyu moo am solo moom mooy tax yow nga mën a dem ci yàlla te mooy tax it koo ko jox it mu am solo boo joxee yàlla bakkan bu dundu bakkan bu dund moo am solo waaye bakkan bu dunduwul rek bakkan lay doon bakkan naa feex la wala bakkan bu dul saadiq wala bakkan boo xam ne ànd na ak sobe moo tax may profiter ci occasion yi di ñaan nit ñi surtout jeunes yi nañu commencé def tarbiya yi na nañu jublu ci tarbiya parce que bala ngay am njëriñu su fànkee da ngay def tarbiya alhamdulilah doomu baay yaa ngi fi mënees nañu tarbiya ñëpp.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 moo ko tax a jóg